taalibe yi nga xamante ne yéen a ngi ñuy topp ak fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel bu baax ci ajjuma ju màgg ji nga xam ne ci lañu nekk waaye di ci sant yàlla bu baax di leen ci sant la yàlla ci fekkeloo gi ñu fekkeloo waat bis bi nga xam ne moo gën a màgg ci bis yi eh, ayu bis gi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo àndee ak yéen saa yu nekk euh, te mooy seen jotaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee atub xidma euh, di ci euh, dellusiwaat ci leeral ci lenn ci xitaab yi nga xamante ne mi ngi am ci yoonu murit gi te li ñu ci gën a fesal bokk ci Euh, xutba bi nga xam ne moom la al imaam euh, sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso xafadahullahu taala wa raah di jooxe àjjuma ju nekk ni mu koy joxee ci làkku yaaram nag ñu koy euh, jubloo leeral ci wolof ngir njariñ li gën a yaatu waaye ñun ñëpp itam ñu bokk ci gën a jariñu loolu moo tax tey dañuy ñëwaat ci xutba boo xamante ne moom la joxe tey ca àjjuma ji euh, muy xutba bu amaat solo lool boo xamante ne euh, jàpp naa ne ñëpp war naa leer ci seen bopp ñu yóbbuloo ko waaye itam fasoo koo jëfee euh, ngir li mu làmbool ci ay njariñ bu ñu dellusee ci xutba bu njëkk bi rek al imaam Cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso yàlla na ko yàlla sàmm te dolli ko dëgëral kàttanal ko ci teewaayu euh, cheikh Mouhamadul Muntaqa hafidahullahu taala wa raahu wa nasara la joxe xutba bi nga xam ne moom la bëgg a leeral niñ ko baaxoo tàmbale itam mooy sant yàlla euh, mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi foofu la ko tàmbalee waaye ñaanal xéewal ak mucc yontu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mi nga xamante ne moo gën a tedd ci ñi yàlla yebal ci mbindeef yi ngir ñu wan leen yoon wi mu bëgg ñu jaar fa ngir mën a dellu fañ jóge wante mooy aljanna gannaaw ba nag la dellusiwaat ci baati seede yi nga xam ne mooy tax lislaamu nit ki e, ñu jàpp ko te mooy seede ne amul benn buur bu dul yàlla moom dong mooy boroom te mooy ki nga xamante ne kenn waru koo bokkaale ak dara waaye daan ne seede googu nag seede koo xamante ne taw tawxiidam sell na seede gën na mi sellee ci se ci ci dëggal ci ne yàlla buur la boo xamante ne moom rekk moo yayoo ñu koy jaamu te moom rekk lañu war a jàpp ne mooy boroom euh, seede na itam mu Muhammad ndawal yàlla la nga ne yàlla moo ko yónni eh, yebal ko ci mbindeef yëpp mu nekk mujjantalu ki nga xam ne moom lay yónni mu nekk ab yonent bu bàyyi ko fa moom ñëw ngir indi diine ngir indi aw yoon woo xam ne ci la nit ñi war a jaar di ca jaamu yàlla te jaamu ga wér eh, loolu itam di leeral ne képp koo xam ne ñëw na gannaaw sang boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa di woote woone yàlla moo ko yónni mu indi diine ju bees wala aw yoon wu wees wu ñu jaamoo yàlla wala anamiinu jaamiin yàlla wu wee woo xam ne yonte bi jàngale ko woon kooku dañ jàpp ne la muy wax ay dur la ay nar la wax ju teguwul fenn la ndax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam muy muhammad mooy ki mu uh, yónni tëjee ko mboolem ñi nga xam ne ñoom la doon yabal ba mu tàmbalee yónnee di yabale ca sunu maam Adama ba ci yonente bi alayhi salaatu sëñ Maodo Mamoun Bousso na moom mooy ki mujj ci yonente yi loolu nekk itam lu mat a bàyyi xel rawatina ci jamono jii ñu toll waaye wan wane ne yaa yonent bi alayhi yàlla da koo tànn ci biir jaamam yëpp mu nekk ki gën ci ñoom ñëpp wax nag amma ba'da fa yaa ayyuhan naas gannaaw loolu yéen nit ñi loolu nag royiinu waxiinu euh, alxuraan la ndax alxuraan day wax yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum wala yaa ayyuhan naas nag teg ca cee teg kon loolu yëpp day wane eh, yi nga xam noonu la nga xutba bi amee solo noonu la noonu la tëddee mooy waxeen wi waxeen wu roy alxuraan la waxeen la woo xamante ne wu ñu baaxoo xam la wu dëppook ni ñu jàngalee xutba ni mu ni mu war a tëddee mu ne i'lamu na allah wa iyaakum i'lamu ñan lay waxal mooy yaa ayyuhan naas yéen nit ñi na ngeen xam ne eh, yàlla nañu yàlla dëppaleeg lam bëgg loolu daa ñaan ci diggante bi xam leen ne daal na nasihata fi diini awjabaha allahu taala alayna fi qawli nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam addiinu an nasihatu mu ne yéen nit ñi xam leen ne laa biirante ci seen biir yàlla moo ko waral ci yéen warteef la ci yéen woo xamante ne euh, du leen wàcc mukk li tax mu nekk warteef nag mooy yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam mi nga xam ne ci làmmiñam la yàlla di jàngale jaamam ñi moo wax ci ab xadis ne ad diinu an nasihatu diine te mooy yoon wi ngeen war a jaar war cee toppee yàlla léppam an nasihatu an nasihatu foofu nag euh, laabiire la baat bi di firi waaye liñ koy déggee mu gën a wóor nga xam ne loolu mooy déggin wi gën a jub mooy ad diinu an mooy diine sellal la diine sellal la al ixlaas ad diin foofu sellal lay gën a juboo firi mi gën a jubee ci nga koy wax ak li koy waral mooy xul naa li man yaa rasulallah biñ laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñan la ñu yow yonentab yàlla bi mu ne qaala lillaahi dangeen ngeen ni laabire yàlla laabire yàlla nag mooy sellal ni nga koy jaamee ni nga koy jaamoo yooyu mel na sax ci biir xutba bi euh, al imaam Sëriñ Maodo Mamoun Bousso leeral na ko moo tax mu ne lillaahi wa li kitaabihi wa li rasulihi laabire googu nga wax wala sellal googu ngay tudd yow yont bi ci ñan lañ koy def mu ne ci yàlla ak ci ak ci téereb yàlla bi te mooy alxuraan alquran wala yi ak ci euh, yont bi sallallahu alayhi wa sallam wala aimmatil ak ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy way jullit ñi ñooy jullit ñi wa ammatihim ak euh, ñi nga xamante ne ñoo nit ñëpp rek mu leeral nag kon leeral eh, laabiire sunu boroom wala an nasihatu jëme ko ci suñu boroom mooy lan mu ne fan nasihatu lillaahi hiyal imaanu bihi bu ñu bëggee wax sellal sa yéene ak sa jëf jëme ko ci suñu boroom la ca jiitu mooy nga gëm yàlla nga gëm yàlla wa taatuhu bil qalbi wal jawaarih nga topp ko mu tam yitam moom sunu boroom subhaanahu wa taala ci sa xol ak ci say cër gëm gëm gi da koy gëm ci sa xol sellal sa pas-pas ci moom waaye nga boole kook nag di ko jëfee ci say cër muy fés loolu bokk mooy bokk ci di dëggal ngëm gi ndax dañoo waxoon ne lislaam daal mooy yoon wi yàlla wax ne nañ ci jaamam ñëpp jaar euh, ab pas-pas la ci bu nit gi di pas ci xolam waaye itam ay jëf la yu nit ki di dëggal pas-pasam booba ci ay cëram di ko jëfe moo tax mu wax ne sellal jëm suñu boroom mooy ñaar yooyu mooy gëm yàlla topp ko gëm ko ci sa xol waaye di ko jëfe ci say cër wan nasihatu li rasulihi tasdiquhu fi ma axbara wa jaa bihi wa ittibaau sunnatihi wa nusratu diinihi mu ne topp bu ñu waxee sellal jëm ci yonte bi sallallahu alayhi ni ngay sellalee ci moom mooy dëggal ne yàllaa ko yónni waaye dëggal lépp loo xamante ne indi na ko ci ab xabaar wax na ko wala mu jëf ko waaye topp itam fi nga xamante ne fi la rëdd ne aw yoon la fii lañ war a jaar loolu itam nga topp ko waaye lépp loo mën a def ngir gën a dëgëral diine ci ak sa bokki jullit yi ci taxawal loo xamante ne moom la ñu moom la ñu woowee eh, yi nga xamante ne ñooy dëgëral diine wala ay kenoy diine wala ay màndarga yoo xam ne day gën a saxal ak a gën a dëgëral diine yooyu yëpp daal eh, moom la ñu woowee achair yooyu yëpp nga nga nga nekk nga fexe ba lépp loo man ci lu koy gën a dëgëral ak lu koy gën a saxal lu koy gën a fesal lu leen dimbali loolu nga sax ca di ko def loolu mooy eh, sellal sa diggante yonent sallallahu alayhi wa sallam wa nasihatu li a'immati almuslimina taa'atuhum wa muawanatuhum ala alxaqi wa am wa amruhum bihi wa i'laamuhum bima xalafu anhu min umuuri almuslimina wa xuquqi ibadillahi taala sellal sa digganteeg sa moroomi jaam ñi te mooy jullit ñëpp rek mooy tapp topp leen ca la nga xam ne ca moom lañ baax le moo tax wa taawanu ala birri wa ngeen dimbalante ak ñoom ñoom muawanatuhum ngeen dimbalante ñoom waaye nag ci dëgg waaye di leen digal li nga xamante ne mooy la baax di leen tere ab safaan waaye saa yoo xamante ne gis nga leen ca ak càggante nga euh, wàññi leen ca euh, laabiire leen ca wan leen ne leen lii kat ab safaan la lu ñu wërta def la waaye bàyyi xel ci ne fépp fo ab jullit mën a nekk ci àdduna bi sa mbokka lépp lu ko jot nga jàpp ne yow mii la jot lépp loo xamante ne dal na ko nga bokk koog moom wa xuquuqa ibadillahi taala waaye itam nga bokk nga boole ca nag di sàmm sa àq yi nga xam ne moo dox sa diggante ak sa moroomi jullit ñëpp wan nasiihatu li ammatil muslimina irshaaduhum ila ma yuslihu axiratuhum wa dunyaahum mu ne euh, laabiire bi euh, bu njëkk bi mooy ay matul te mooy ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñooy kilifa yi kilifa ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci diine ñoom itam li la war sa diggante ak ñoom mooy topp leen ca la ñu digle ndax eh, yàlla daa wax na atiiwu llaaha wa atiiwu rasuula wa ulil amri minkum na ngeen topp yàlla topp yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw bi itam ñi nga xamante ne ñoo ñëw di woote seen gannaaw te di leeral lañ doon la yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam doon jàngale ñooñ itam na ngeen leen topp loolu moo tax aimmatul muslimin topp leen lu war la waaye dimbalante ak ñoom ci dëgg gi ñu woote waaye itam ndigal li ñuy digle nga topp ko waaye itam mboolem loo xamante ne lu ñuy yeete la ngir nit ñi bëgg caa jug nga fexe ba loola nga bokk ca ña nga xam ne bu ñu leen wàññee ñu wàññeeku bu ñu leen waxee ñu dégg bu ñu leen jëfee bu leen digalee ñu jëf. Euh, mboolem jullit ñi nag ni nga leen di laabiire wala ni ngay salalee sa diggante ak ñoom mooy irshaaduhum ilaa maa yuslihu axiratuhum mooy euh, digal leen. wala nga leen di dimbali ci lépp loo xamante ne day yewenal seen dunduk àdduna gi waaye itam day liwenal seen dunduk àllaaxira bu ëllëgee wa taalimuhum bi ma jahiluhu lépp loo xamante ne umpule nañ ko wala ñu réere ko nga fe boo ca boo leen ca tanee nga laabiire leen ca fexe ba digal leen ca la nga xamante ne moom la ñu war def wala wala nga xamal leen ca la ñu umpule loolu itam bokk na ci sellal sa diggante ak jaam yàlla yi wa amal kitaabu fa qawluhu taala waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alxayr wa yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun mu ne yonent bi sallallahu yàlla sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne na e, nekk nit ñoo xamante ne da di woote lu baax di woote jëme ci lu baax di digle lu baax di tere ab safaan daan ñiy def loolu day mooy ñi nga xamante ne aw nañ ci yoonu texe kon loolu mooy xutba bu njëkk bi nga xam ne moom la al imaam Serigne euh, Mouhamadul Mamoun bu sa joxe mu mel ni ci xutbam ñaareel bi mu ci ñëwee itam ñaareel euh, dafa gën a dëgëral loolu saxal ko ginnaaw bu mu sante yàlla mi nga xamante ne moo gën a ñeewante jaam ñëpp ëpp ci ñoom yërmande yàlla mi nga xamante ne xéewalam yi kenn du ko natt kenn du ko takk yàlla mi nga xamante ne ku kawe la ay ci ay jëfam ku kawe la ci ay melokaanam ku kawe la ci léppam. sedd na moom borom boobu ku mat a jaamu la ku wéet la ci kennam ki mu nekk mooy mooy moom dong mooy yàlla waaye itam yàlla bu moom nga xam ne moom rekk mooy jéggale waa kon bi nga xamante ne jaamam bu tàllal say loxo jëm ci moom du tas sa yaakaar ci jéggulu ga nga koy jéggulu sedd na yontu bi sallallahu alayhi wa sallam itam moom mooy delluwaayu mbooleem ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi mooy ballaluwaayu leer yépp moom sang boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw bi fa yaa ayuhan naas yéen nit ñi kon ma ngay wan ne ñi nga xamante ne yéen ay déglu yéen laay jubloo wàqanteel aaya bi nga xamante ne tuddoon naa ko léegi ak yont ak xadisu yont bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne wax naa ko léegi aaya bi mooy waltakum minkum ummatun yad'una ilal xayri al aaya ak ad nas ad diinu a nasihatu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xadis boobu ak aaya boobu na ngeen xam ne mooy bayaanul ijaabi li amri bil lil amri bil maaruf wan nahyi anil munkar na ngeen xam ne daal loolu mooy leeral gi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi na ko gën koo leeralee alquranul karim ci war gi nga xamante ne moom la digle lu baax waree ak tere gi nga xamante ne tere ab safaan nekkee na ko lu war loolu daal da ngeen xam ne ñaari aaya yu ak xadis boobu loolu lay gën a dëgër di ko gën a saxal kon nag maa ngi leen ci soññi ngeen nekk nit ñoo xamante ne da ngeen ni aw ca yoon wa tey digle lu baax waaye wan gannaaw lépp loo xam ne ab safaan la te képp ku ngeen ko mën a moytuloo ngeen fexe ba moytu ko képp ku ngeen ca mën a jëlee ngeen fexe ba jëlee ko ca loolu itam mooy li nga xamante moom ngeen war a def euh, mu ne kon yàlla nañu yàlla boole dimbali taxawuñu ñun ñëpp ba nga xam ne danañ nekk ay nit ñoo xamante ne danañ jëfe lu baax di tere ab safaan di def lu baax di moytu ab safaan waaye nekk ay nit ñoo xam dañuy sellal suñu digganteek suñu borom sellal suñu digganteeg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam sellal suñu digganteeg kilifa yi nga xamante ne ñoom la ñu yàlla boole ñu yilif ñu sellal suñu digganteek mbooleem jullit ñi waaye sellal suñu digganteek mbooleem jaami yàlla yi loolu nekk lu ama am solo loo xam ne ñëpp war nañ ci bàyyi xel war ko mm, dégg waaye war caa teg seen tànk ba beneen ajjuma ñu dellusiwaat ci beneen xutba boo xam ne al imam Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso dana ci dikkaat ñu teewaat fii ci ëttub xidma ngir leeral ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi delluwaat di nuyu boole mbokk yi nga xamante ne ñu ngi topp jataay bi waaye ñu ngi eh, rafetlu itam Euh, taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am ci di rafetlu jotaay yi waaye di ko topp saa yu nekk kon euh, ñu ngi leen di tàggoo foofu di leen sant bu baax di leen gërëm ci topp gi ngeen di topp seen télévision GMT TV euh, di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu dimbale ñun ñëpp tënku nji ak njub wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu